mbégte lool tey teew fii ci école El Hadj Abdel Kader ànd fii ak euh, association alasko mooy ñi nga xamante ne dañ demoon jàngi koy Corée ba ñibbisi am seen mbootaay am xalaat bu rafet tey jël euh, matériel bii ngeen gis jëm ci wàllu cet jagleel ko waa école bi may leen ko ñu ngi ko may nag école yi nga xamante ne ñoo gën a ràññee ci résultat yi moo xam école El Hadj Amadou Makhtar Thiam fële ci HLM ak école Abdel Kader fi donc ñun en tant que inspecteur ñu rafetlu ko tool parce que li ñuy def nii ñun lañ ko defal ndax ñun fii ci inspection Thiès dañu am ren benn projet bu ñu tuddee école propre école verte mooy xam dañuy bu ñuy demee ba fii di école tëj dañuy jël école yi gën a set ak école yi gën a yi nga xam ne gën nañ fa jëmbat ay garab mu rafet ñu ñu ñu ñu neexal leen. mais xëy nag bu fekkente ne ràññee nañ ay écoles yoo xam ne tamit setuñu te jëmbatuñu fa ay garab également ñooñu dinañ wax ak ñoom donc lii ñu def nii tey ñoom ñun lañ ko defal ñu leen ciy sant di leen gërëm di leen wax ne ñoom def nañ ko ci ay loxo yu wóor ndax fii ay jàngalekat yu xarañ ñoo fi nekk yu am pas-pas ànd ak seen directeur d'école dinañ ko yore nu mu gën a rafetee ndax euh, bu fekkente ne école bi set na xale yi set dinañ am wér njàng bi day gën a jëm kanam te loolu moo ñu tax a jóg. dañu ñëw vraiment pour euh, euh, manam primer li nga xamné moy ñaari école yo xamné ne gëna gën xereñ ci buñu xolé ci résultat wu examen yi passé muy 2019 euh, ci walu CFE ak entrée en sixième école bi nga xamné moy Amadou Mokhtar Cham, nga xamné dafa am 100 certificat 100 entrée en sixième ak école bi nga xamné moy Abdelkader Ndiaye nga xamné dafa am 98 CFE am. 100 entrée en sixième ñu ne vraiment ñi war nañ ñëw nous leen Manam ni leen di njukkale nak du dañuy ñëw rek euh, jox leen prix rek mu yem fofu dañuy ñëw defal leen aussi dinañ mën continuer matériel de nettoyage. bi té ñu bu ñuy wax nettoiement lolu day jouer cadre de vie parce que boo demee ci école yi lu gën a bari yenn saay euh, cet gi maanaam lépp lu jëm ci wàllu setal dañ koy bàyyi ak école yi te seen budget yi xam nañ yenn saay du mën loolu moo tax ñun ñu ne dañuy ñëw indi euh, matériel boo xam ne au moins ñoom saa yu ñu euh, saa leen neexee rek chaque semaine mën nañu def ay activités de nettoiement ak élèves yi ak waa quartier bi ak parents d'élèves yi itam yeneen écoles yu xool ci écoles yi nga xam ne tey dañ leen a jox ay raaya mën naa ko tuddee sax ay raaya maanaam ñooñu nag euh, ñu xool ci ñoom pour que déwén ñu mën a def ni ñoom wala def li gën ñoom li ñu def pour ñu mën a am lu mel noonu ñëw nañu tey boole ci activité bi maanaam li ñu wax reboisement ndax ku ne xam na tey ah jaww ji changé na muy wàllu changement climatique yi donc loolu nag ñu xam ni jëmbat garab am na lu lu bari loo xam ne mën na ko ci euh, maanaam saafara donc moo tax aussi ñu ñëw def loolu mais dañuy joxe juste maanaam euh, exemple rek pour que ñeneen ñi mën a xool ci lu ñu def aussi euh, ci seen école yi ñu mën a continuer action yu mel nii.